wa kullu qarnin naajimin fi samanin fa huwa shabiihu samanin fiihi badaa wannaasu kannabti fa minhu raa'iqun oddun nadirun odduhu murrul janaa wa minhu maa taxtahimu al-aynu fa in duqta janaahun saaxa hadban filluha yuqawwamu saarixu mhm. min sayxaanihi mhm. fa yastawi manaaja minhu wan hana mhm. wa seexu in qawwamtahu min sayxihi lam yuqimi tasqifu minhu maltawa maanaam jamono léeg-léeg de ko tawat fekk jamono melul waaye melokaanu ña ko dajjal moom lay xamee dégg nga jamono melokaanu ña ko dajjal melokaan boobu lay xamee waane naa ji min gudaa ji feeñ gudaa ji génn gudaa ji feeñ fi zamanin ci jamono maas gum bu feeñee ci jamono foo moom maas sabihu samanin aj niru jamono la hmm. badda joj feeñ na fii ci moom hmm. ñoog jamono joj ñoo di niroo hmm. aw nit dañooy tekki góor góorlu xam tiraanga ci seen jamono ñooy seen jamono jamono tiraanga la jëriñoo seen jamono xam lañ war a xam ñoo jamono jiw la wala ñu sàggan neenal seen jamono mm. dal perta mm. ñuy gaafal jamono ba mm. fekk seen jikko ya ci la seen jamono ànd ak ñoom nit ku nekk da war xam ne jamonoom ci la mën a wutee lim bëgg su muy jamono njëriñ ci moom su ko neenalee muy pertama ci moom rek noonu daal la ñu nekk da war xam ne jamonoom ci la mën a wutee lim bëgg su muy jamono njëriñ ci su ko nee na lee muy perte ji moom rek noonu la demee dégg nga kullu xarnin gépp maas mhm. naaji min guraaji feeñ mhm. fii samanin ci jamono mhm. fa woo moom sabihu samanin ajiniru jamono la ba daa feeñ na fii ci moom e alin xidan bil madahira e wattandegu loolu xool jëmmi nit nii rek foog ne ku ne la te fekk du dara wala xool jëmmi nit foog ne kii du dara te fekk moom dana ku ne loolu ci la lay xeer da xool maani yi mooy xaqaayiq yi nga bañ di xool mazahir yi waaw bañ a xool col nga yi ak jëmm yi ak kàddu yi nga seet jikko yi ak doxalin yi nit ñi del ànd ñoom ci noonu waaw bañ a xool col col nga yi ak jëmm yi ak kàddu yi mm. waaye nga seet jikko yi ak doxali mu mm. laa ne wan naa su nit ñi mm-hmm. kan nabti ni ki gàncax la mm. mooy ni nga gis gàncax gi mel noonu la nit ñi mel da gis gàncax gu xam ne mm-hmm. xob bi dafa naat lool doom bi fër tooy xepp xepp mm-hmm. waaye boo ko bëggoon a lekk du baax ci yow de doo ko mën a lekk te boo toggoon lekk du baax ci yow comme bere bu xataa gis nga xob bi ni mën a naate gis nga buumu lawtan ngi ni mu mën a tooyee gis nga doom bi ni mu fëree ak ni mu bëree ndox waaye kenn mënu ko jëriñoo te bu nit xaroo ne da koy lekk sax du baax ci moom dafa am ci nit ñoo xam ne noonu lañ mel mën nañoo solo ba nga foog ne ñoo gën ku ne ñu wax wax joo neex neex waaye boo jaxasoo ak ñoom ci loolu rek ngay dëkk ci loolu rek ngay dëkk ak mu ne dañ lor rek xam na ci nit ñu mel noonu comme xatar mm. moo tax ne fa minu am na ci gàncax mm. rayiqun aji héeme mm-hmm. xaddun lu daaji naat mm-hmm. nadirun lu daaji natam xooduhoo mm-hmm. bantam murrul janaa lu daaji wax ci côté léeg-léeg nga gis gàncax gu xam ne xob day naat doom bi fës torop waaye kenn mënu ko lekk kenn du ko di jëriñ xam na ci nit ñu mel ñu xam ne mën nañoo solu mm. mën nañ wax yu neex mm. waaye ker boo jaxasoo ak ñoom rek ngay dëkk ci loolu rek ngay dëkk mm. dañ lay nax da la lox rek wannaasu nit ñi mm-hmm. kan nafti ni ki gàncax lañ mm-hmm. fa minu xam na ci gàncax mm-hmm. raayiqun aji héemi addun lu daaji naat nadirun lu daaji na tax hoodu hoo bantam mm-hmm. murrul jana mm-hmm. lu daa ji weex ci côté mm-hmm. wa minu am na ci gàncax maa bu xam ne tax taximu dana ko bët alaynu bët xam na ci gàncax yoo xam ne boo ko xoolee doo gis bant boo naat doo gis itam rafet doo gis itam doom bu fër mm-hmm. te fa in duxta boo mosee mm-hmm. janaahu kottiteem mm-hmm. in saaxa mu neex asban daaji neex filluhaa ci po te la mooy meññi lu neex a neex lay do boo ko lekkee lu baax ci yow lay do comme garabu tàndarma ku ne xam ne yaramu garab wi rafetul ku ne xam ne xobu naata naat xamu ci te nga doom bi ni mu neexee mm. gis nga ni baaxee ci nit dafa am ci nit ñoo xam noonu lañ melee nekk dala jaye ka mm. dala waxal lu dul dëgg mm. yëpp seen mbir ba leen xamulee da ngay foog ne ñu ñànga lañ ndég bëgg ñu bëgg dëgg waaye boo demee ba jaxasoo ak ñoom lenn rek moo lay métti xanaa li leen yéex xam rek rek nag kon ngay seet ci jikko yi ak ci doxalin yi bañ di seet ci région neex rek ak col goo jot rek waaw dégg nga booy tànn koy jaxasoo nga seet ci jikko yi ak ci defin yi waaw bañ a seet ci région neex rek ak col nga goo jot waaw xam nga li mu bëgg a wax dégg da ngay wattandeku alin xidan bil mazahir naxu ci mazahir yi am na ci gàncax maa bu xam ne taqtahimu dana ko bët alaynu bët boo koy xool daal day mel ni du dara te fa in duxta boo mosee janaahu kottiteem waaye meññetam boo ko mosee in saaxa mu neex as ban daaji neex fi lu ay ci pour da ngay gis muy lu neex lu baax ci yow nga ko bu baax a yu xawwamu def na jubanti mhm. assaarixu aji ndawe mhm. min seyxaanihi ci njengam mhm. fa yastawi dal di mooy dal jub man la dëngoon minu ci moom wan xanaati mu lump mu ne gune melagul nenn noo bëgg mu mel rek man ko melalee moo tax du ko seetaan lu la neexoon mën koo dindi ci moom mm. lu neex mën koo def ci moom mm. mu ngi mel yaram ngeraan bi rek mm. soo bëggee mujj mën koo bëj ba mu jubee nu la neex soo amee noo bëgg mu dëngee mën koo xool dëngalee ko noona bu ne nun la mel waaw bu ne dañ koo yar ndax loo bëgg mu ne ci moom mën na caa neexee ci yar loo bëgg mu ne ci moom mën ko caa dindi ci yar bu ne dañ koo yar duñ ko seetaan yu xawoomu def na jubbanti mm. asaarixu aji ndawe mm. min say xaani yi ci njëngam maa mm. gune dañ ko yar yar mën naa dindi ci moom njubadi def ci moom njub fa yastawi hemoo man haaja la la lunku munu ci wan xanaate mu lunku wa seexu mag nag waaye mag ci boppam nag in xawamtahoo boo ko nam ma jubbanti min seexi yi ci njengam mhm. lam yuqim du jubal mhm. ak tasxiifu bëj mhm. tasxiif mooy ne gën ñi def bant noonu tàngal ko di ko jubal mal tawaalu dëng bi lu ci moom waaye mag na moom du ko ñu yar waaw mag moom na mel xas na dëgër ci moom mag booy ànd ak moom danga seet jikkoom jikko ko jikkoo nu war a àndeek yow nga àndeek moom ca noona waaye bal xalaat dindi jikko ja mm. dégg nga mm. waaw mag booy ànd moom mm. da ngaa seet jikkoom ji ku ko jikkoo war a ànd yow nga ànd moom noona waaye bal xalaat dindi jikko ja ndax jikko yi mag duñ ko di dindi xam nga li ma la wax la demee rek dégg nga noonu la demee nit ku mën a doo rek jikkoom danay wane nuñ war a ànd ak moom waaw sooy xum mag in xawoom te boo ko bëgg a min seex yi ci njengam mm-hmm. lam yuqim du jubbante atasqi hu bëj mm-hmm. mal tawalla dëng mi aussi